Colobane wala kenn ki dëkk Médina kenn ki dëkk Gueule Tapée bi ñuy retourné ci yoonu Touba bi dañu def choc ñu daal ñàkk seen bakkan. Euh, la ñuy woo ñoom ñaar ginnaaw ba ñu demee ci màggal ko borom Touba ba def fa une semaine euh, ci retour bi daal la leen euh, benn sept place daal di fel naka noonee camion daal di leen fekk rek daal di leen di gën a ñu daal di ñàkk seen bakkan ñoom ñaar ñëpp ci taliba di ñaan yàlla suñu borom daal di leen di xare àjjana fa ñu jëm gën a leen fa ñu jóge tey ñaan yàlla Euh, ñaan yi nga xamante ne defoon nañ ko ci bërëb bu sell ba daal di leen di fekk ci seen bàmmeel. yaakaar naa ne am na solo trop ndax boo xoolee tali bi nekk ci diggante Mbour ak Thiès tali la boo xamante ne nii bariwul lumière te tali bi baaxul ni mu war a baaxee boo ci daw yenn daw yi boo daanu weer rek pour nga jugaat dina métti trop waaye ba tey ci journal bu Vox li mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko ak ñenn ci sénégalais yi. parce que am na loo xamante ne ni moom bëgg na ko ci diggante moom ak sénégalais Ousmane Sonko ak sénégalais comme ni nga ko waxee rek jamono ji mi ngi naxtaanante ñoom pour ubbi seen ay bët jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo bi waaye tamit daal di koy jëmale ci élection présidentielle lu 2024 yi muy def ay promesse comme ni ko euh, yeneen politiciens yi di defee rek que ni bis bu ko euh, sénégalais yi fale dina dindi barrage bi nga xamante ni moom moo am ci diggante gouvernement bi ak euh, patriote yi kooku mooy Ousmane Sonko di président bu Pastef waaye mbirum gàmmu 2020 ñëpp ñu ngi naan dina am ñenn ñi nee nañu tamit du am parfois ñu dégg rumeur sax ñu ne waa Tijaan yi wax nañu waaye fi mu toll nii nag. décision bi dina jug te buy jug suba incha allahu rabi lay jug. màggal deux mille vingt màggal a gàmm bu ko ne xam ne ñu li ñu rawante vingt jours la wala bu ko ëppee tamit sorewul loolu ba tax na nag jamono ji euh, tiijaan yëpp jullit yëpp ñoo ngi doog di déglu ki nga xamante ni moom moo di xalif général des tijaan mu daal di prononcé wu ci li nga xamante ni moom di mawlud deux mille vingt bi waaye kàddu yi nga xamante ni moom lañuy ñuy ni gëm naa ni talaata incha allah lañ ciy jot ndax ci la xalif des tijaan décidé wax lu jëm ci gàmm gi. yaakaar naa ne am na solo torop ba tax na sax journal bu l'observateur daf cee ñëwaat ndaxte nekk na loo xamante ne ni Amina Ndiaye ñëpp ñu ngi koy xaarandi parce que bu ñu waxee gàmm ci réew mi. xel yi dina dem ci kër diine yu bëree bëri waaye xel yëpp presque day àndandoo rek dem ci Tivaouane lu ci mënti am daal journal l'Observateur nee na nguur gi daal dina lever barrière yi nga xamante ni moom la tegoon ci jàngoro yo coronavirus bi alhamdulilah waaye nag gàmm gi dina am wala du am décision boobu mi nga war a jógee ci xalif général de Tidiane incha allah suba lañ ciy xam dara bu 12h jotee. yaakaar naa ni am na solo torop waaye mbirum mœurs yi nga xamante ne ni mi ngi am ci digg dëkk bi benn borom Jakarta moom moo violé. raqu xaritam boo xamante ne ni 11 ans rek la am. 11 ans rek la am ñoom ñaa ñu nekk ay euh, meilleur ami conducteur Jakarta boobu nag daal di violé ab xale bu tolloo tolloon ci 11 ans nekkoon raqu meilleur ami am kawteef ak ñu noonu. kawteef bu ëpp kawteef moom ci loolu du gaaw waaye diggante na Colobane. Gueule Tapée jàpp sax fan dafa am loo xamante ne liggéey bu amam solo la boo xamante ne policiers yi ñu ngi koy amal Amina. ñeenti kon yoo xamante ne mi ngi nekk fii nii ci Dakaaru Ndiaye Jal Jom Medina Gueule Tapée Colobane ak fan nekk na bërëb yoo xamante ni nag banditisme bari na fa lool ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di sàcc ay scooter ay agression ay cambriolage loolu yëpp police daal dina fay teg loxo ba tax na teg na loxo gang bu baree bari ñoo xamante ne ci loolu lañ doon yëngu. yaakaar naa ne nekk na lu am solo loolu moom heure bu amee rek dañuy war a féliciter la police ndaxte ñooñu moom ku leen teg loxo rek di nga wàññi lu bëree bëree bëri ci réew mi. ba tey ci journal bu l'Observateur mu daal di ñëw ak ñun ci Mbathio Ndiaye nekk na koo xamante ne nii dayoom ci réew mi ñëpp xam nañu ko balaa ngaa xam dayoo Mbathio Ndiaye rek mu juum. nga gën xam dayoom moo tax fi mu toll nii nag ñi ngi naan dañ koy waaj a maye ak buñ ko waaj a maye. Mbathio Ndiaye indil nañ ko li nga xamante ne moom la ñuy woowee ka cadeau français bi naan ko dootu may gu njëkk euh, la ñu indil Mbathio Ndiaye ñu koy estimé ci ay millions yu bëree bëri ak bague en diamant ak yeneen yoo xamante ni euh, borom këram bi muy waaj a jox na ko boobu ba tey nag polémique bi euh, mi ngi ci moom laam ñu jugul ci moom ci ay publication yoo xamante ni ñii ñoo ko ci dut baaraamu tuuma ñeneen ñi ñoo ngi ko ci encouragé ñeneen ñi di ko gëmloo ni borom këram karaw gu ñuul nga ñàkkoo dara waaye moom première réaction bi nga xamante ni am na ko moom euh, Mathio Ndiaye mi ngi yëgle ni euh, xaalis bi nekk na loo xamante ni yitteelu ko soxalu ko ba ci jamaa bi nga xamante ne jox nañ ko ko euh, lenn rek moom moo ko ñor mooy mbëggeel bi nga xamante ni futur borom këram bëgg na ko daal di ko koy prouvel ci kanamu sénégale yëpp. yaakaar naa ne am na solo torop ndax jox nañ ko lu toll ci 10 millions jox ko téléphone bu mucc ay ak oto. nekk na lu am am solo yaakaar naa dañu koy ñaanal suñu borom sàmm ko moom ak borom këram ba lépp yemb mbirum ki nga xamante ne ni moom mooy Aliou Tambourou Sow nekk député boo xamante ne ni bokk na ci APR. dafa jël ay décision yoo xamante ne ni amul dara loo xamante ne ngi mi ngi koy regretté. Aliou Dembourou Sow nekk euh, député bu APR moom nag te woon na ay kàddu yoo xamante ni yeewoon na fi ne ci euh, Sénégal ndax ne woon na dañuy jël ay machette lekk daal di dem ca diwaanu pale ba ngir éviter li nga xamante ne moom moo di troisième mandat nekk na loo xamante ni nag waa euh, nuñ koy waxee sax mouvement yi fi nekk seetaanuñ ko benn yoon ñu ci bari daal dinañ koy porté plainte ndax ñoom seen jëfe leen àndut ak violence waaye kàddu yi nga xamante mu yëkkati na ko Aliou Dumburu Saw di yëgle ni euh, kàddu yooyu du ci dellu benn yoon ginnaaw te tànk dëkkoo Fuuta wala Ferlo doo comprendre fu muy waxee ndax euh, benn ñu koy waxee rek euh, ton la wala benn kàddu la boo xamante ne politiciens yu nekk ci diwaanu Fuuta ñoom ñooy faral di ko utiliser. kon yaakaar naa ni am na solo torop ñu bokk teen rek ñoom ñooy laxasoo ay goj naa bu libération daal di ñëw ci li nga xamante ne nii lu ñu ko mën a tuddee sax moom mooy ab héros bu bees boo xamante ne nii gis nañu. lu ñoo ngi koy woowee ax di Joël Célestin Philippe moom nag daal di nañuy fàtt bakkanam fële ne la ci diwaanu université Cheikh Anta Diop de Dakar nekkoon as xale gu góor bu ndaw ndaw étudiant teg ci nag àndoog ak ñaari moroom moom naka la leen band yi kare rek laaj leen lu ñu yor lu ñu yoroon mi ngi tolloon ci ñaari téléphone ak mille 11000 francs CFA jox nañ leen ñaari téléphones yi ak 11000 yi mais ba mu bëggee ay xaritam rek ci dalee na yuuxu ni leen daw leen ñooñu tàmbalee di daw rek mu daal di jël xeer ngir affronter ñi nga xamante ni ñoom ñoo di band yi ci saa si nag lañ ko daal di jam paaka ba mu tëddee oto yëpp ñoo ko doon romb kenn nangu nanguloon taxaw dimbali ko waaye comme ni ñu koy waxee rek ab benn ndaw soo xamante ni yaay la te fu mu dem dina ko fa wane moom moo taxaw daal di baare li nga xamante ni moom moo di circulation bi ngir nit ñi mën koo dimbali waaye c'était trop tard ki nga xamante ni moom moo di Joël quitté woon nañu ba pare. nañuy am li nga xamante ne moom mooy habitude wala xolu yërmande pour di dimbali ñeneen ñu nekk ci ay jafe-jafe ndax bu ñu ko teeloon dimbali amaana du yegg si fii te ndaw la boo xamante ne ni du c'est la première fois ñu def ko ci journal bi semaine bële passé defoon nañu ko ci. dañu ko ñaanal suñu borom jéggal ko woyofal suuf ci kawam ñi nga xamante ne ni ñoom la fa fekk suñu borom jéggal leen ak ñekka fekk yépp ci wàllu sport journal bu record daal di ñëw ak ñun ci. match amical bi war am suba ak jàmm incha allah diggante Sénégal ak mortani ginnaaw bi ñu pertee suñu premier match amical diggante suñu diggante ak Maroc ñu dóor ñu ay dóor yu métti fi mu toll nii nag. pression bu rëy rëy rëy dafa nekk ci ki nga xamante ni moom mooy Aliou Cissé. naar yeeg sénégalais yi ñoom ñoo jongante suba incha fële na la ca stade Lat bu Thiès mu nekk ab match amical euh, bi nga xamante nag sénégalais yi perte du nekk seen avantage euh, nul sax du nekk seen avantage ndax day créer benn désordre donte sax match amical la waaye ki nga xamante ni moom moo di Sidi Sarr ñoo ngi yëgal ñu forfait nañ ko contre Mauritanie ndax dafa mel ni dafa amee blessure euh, ñoo ngi xaarandi Gana Gueye ak loppi ci li nga xamante ni moom moo di confusion yi. yaakaar naa ne nekk na lu am am solo ndaxte ay xale lañ yoo xamante ne ni am nañu. mën-mën bi am nañu bëgg-bëgg bi mbay Niang mi nga xamante ne ni transfert am dafa avorté mi ay kàddoom rek naan bëgg-bëggam yëpp bokkul na ci mu dem Saint-Étienne. ñoo ngi ko doon déclaré boobu ba tey ci réseaux sociaux yi ak ci média yi que ni Mbaye dañ koy daal di transféré ci beneen club moom mu daal di yëkkati ay kàddoom ginnaaw ba loolee daal di avorté rek mu yëgal ni moom envie am bëgg-bëggam ak yëg bi nga xamante ni mi ngi koy am jamono ji moom Mbaye Niang moom moo di daal di dem ci club buñ naan Saint-Étienne. yaakaar naa ni am na solo trop ndax mbay ñaa biir Saint-Étienne moom dina nekk lu amam solo ci wàllu football ci ak ci carrière am bu suñu làmb la ñu koy daal di jeexalee mu daal di ñëw ak ñun ci la doon King de la lutte sénégalaise Gaston Mbengue mu ñëwaat ak ñun ci revanche bu fi amoon. diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 seen premier combat dañoo nul deuxième bi Eumeu Sène daal di daan ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 mu toll nii na cachet bu ñu leen proposé ñoom ñaar ñëpp. revanche lamb ji daal di na sàjji euh, Gaston Mbengue proposé lu toll ci 35 millions de francs CFA à Lac de Guiers 2 moom nag lànk na bañ béywut ku ko bañ la nee na 50 millions lay laaj wala dara. yaakaar naa ne nekk na loo am solo parce que ay ténor lañu te ay VIP lañu moom loolu di ko wax sax dafa bokk ci bari wax. Balla ngay de ngir mu jël revanche am ci digganteem ak Bombardier da koo jaral mu delluwaat ba INSEP. ca Paris pour defaruwaat. saison 1 bi jàlloon na saison 2 bi daal amateuru lamb yi fas yéene assisté ci digganteem ak Bombardier Balla Gaye de comme ni ñu ko fësalee rek ci euh, journal bi mu am 8 victoire 2 défaites B52 de Mbour 5 victoire de défaites lamb la ci biir lamb yi combat ci biir combat yi ñoom nag ñu daal di bokk 8 adversaires en commun yi nga xamante ni ku ci nekk rek boo jógee ci kii war nga mën a dal ci keneen wala ci ñi nga bëree loon bu yàgg ba euh, ak ak sa moroom xaw ma nu ko olof Ndiaye di waxee ñoom ñaar ñoo gi noonu làmb ji sàjj na Bombardier Balla Gaye de saison 2. saison 2 ndaxte ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk ay adversaires yoo xamante ne ni bëri nañu ak ñoom boo xoolee Gris Bordeaux bëri na ak Balla Gaye numéro 2 bëri na ak ki nga xamante ne ni moom mooy Bombardier Tafa Gaye bëre na ak Bombardier bëre na ak ki nga xamante ne ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 itamit bëre na ak ñoom ñaan ñëpp Eumeu Sène bëri na ak ñun mel ñëpp Tapha Tine Modou Lo Mouhamed Ndao Tyson a bëri yaakaar naa ne nekk na lu am am solo ci wàllu làmb ndaxte làmb moom moo mel noonu yaakaar naa ne itamit di ñu safoo saa su nekk sur la BP Actu defaat naa retour nag ñëw naa ni saraax ci biir kër gi te duma génnaat doon leen wax rek namm naa leen yéen ñëpp di leen dalaatal jàmm di leen jox dig da ba suba incha allah jërë